tolloog fukki doomi aadama ak ñett ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci benn accident gu métti gu am fële ca yoonu Koungheul bii li ni mel nag daal di am démb boobule accident daal di jur njàkkare gu mag a mag a mag bus bi yeboon lu tolloog 68 passagers mu nekkoon benn horaire bu jóge woon ndakaar doon dem fële ca Kédougou li waral boobule accident bu ñu sukkandikoo ci témoins yi pneu bi moo daal di toj ba kii di chauffeur bi daanaka mënatul woon contrôler li nga xamante ne ni moom mooy oto bi ca noonee la daal di daanoo accident bi daal di doon lu métti tax na ba ñuy fàttaliku li nga xamante ni moo fi jotoon a am ci weeru janvier bi 2023 lu tollook ñeent fukki doomi aadama ñàkkoon ci seen bakkan ci jamono jooju moo waraloon ba gouvernement bi fi nekkoon jëloon ay ndogal tere lépp luy voyage yu guddi wante tamit ay surcharge wala ay bagages yoo xamante ni dañ koy daal di teg ci oto bi njiit yu fi nekkoon xamle woon tamit ne dinañ contrôler lépp luy oto buy jógee Dakar di voyager dem ci àll bi vitesse yi contrôle bi ak yenn marchandises yi nga xamante ne ni moom la oto yi doon yàpp ngir rek daal di wàññi bu baax a baax accident yi nga xamante ne ni dañ koy faral di nemmeeku wante rek mu mel ni day jafe bu baax a baax ngir autorité yooyu la ñu daal di sàmmoog seen i kàddu ndax jafe na ñu respecté li nga xamante ne ni moom mooy mesure yooyu la gouvernement bu bees bi gannaaw accident bi fi am démb ñoom daal di nañ jël dogal ne dinañ dajale acteurs yëpp ngir daal di xool ana naka la ñuy def ngir mën a waxtaan ak ñoom ki ko xamle di ministre du transport bu bees bi di El Malick Ndiaye ngir rek daal di taxawal ci nu mu gën gaawee ay mbir yi nga xamante ni nii dina tax ñu mën a xeex lii di accident yi jëm bay digitaliser lépp luy processus bi ngir képp ku bëgg a am permis fii ci Sénégal ak carte grise yi xool ana naka la ñuy def ngir mën a indiwaat lii di permis à point ak tamit installer fépp ay centre de contrôle loolee nag doon lu sénégalais yi di xaarandi bu baax a baax.